xëy na moo liyee maase ci def ko aw faas yi te cosaan la nekkoon laraamahunna bi zinan wa faas yi waaw rekk nekk fi aw bañ fee nekk wala boog xëy na sëriñ bi moo fi def aw te bëgg aw ji amee max naam waaw ne da nga gis ci ñuy wooteeg cëriñ koo xam ne day muuru mel ne du xool jigéen mel ne daal daa bokk ci kilifa yu baax yooye nga xam ne am guñ amoonuk sàmm te xam te xàmmee te ragal yàlla te maandu daa taxan dañuy gëmm seeni bët saa yu nekk bu boo ko xamul sax mën naa am nga defee dañoo gumba bëgg leen wommat di leen teg ci yoon wa fekk na ñoom gumba wu ñu waaye bañ gis rek lu ñu wërta gis moo tax ñu mel noona te fekk na kat bu wéetaleeg jigéen yàlla rek ñetteel leen mu taxaw temm ci bëgg njaaloog moom bu doon jël aw sémmiñ wala beneen ngànnaay it jaral na ko ko maanaam bu jigéen ja bëggee bañ daal dana ko jaral jël aw sémmiñ mbaa jël si mbaa leneen ba jigéen ja nangu rek mu njaaloog moom wayat daa yi dana woote albaxdu lenn ci sëñ si alwusoola àgg ci yàlla taarika xibaadatin mbir muy aji bàyyi ak jaamu mën na it taarikan mbir muy aji bàyyi ibaadatan ak jaamu xataa yasiira ba dana mujj xaalikan di aji alko waxarrahum te war na leen fii zaaka ci loolee suul fahmi ñaawuk dégg wa dana sul xijaa ak tere xel xel mu tere bi xëyri xilmi ci lu dul xam-xam wa fassaroo te ñu firee law dal yaqiini baatub yaqiin bil yaqiini ci ak wóolu fii aaxiril xijri ci mujjug saaru xijri bilaa mawtin ci lu dul dee yaxiinu kook dana teew ne am na sëriñ si ñoo xam ne ñàkk dégg alquran yóbbe na leen lu doy waar mooy ba alquran ne waabud rabbaka xata yatiyaka al yaqin da caa jublu al yaqin dee jaamul sa boroom ba dee dikk dee moo lay wàcce ab liggéey waaye ñoom dañuy jàpp ne al yaqin jooju ak wóolu rek lay firi nga xam ne kon suñu dee jaamu yàlla ba àgg ci seen xol dal ci yàlla rek amatuñu jiixi jaax ak sikki sàkka ñu daldi bàyyee jaamu fekk na laaya ba dane jaamul sa boroom ba ba ngay faatu waaye néewul jaamul sa boroom ba ba ngay am yaqin rek muy ak wóolu sa digganteeg sa boroom ndax wóolu gi mën nga koo jor sax fekk seytaane moo la nax waaye yaqin googu sax amut kon ñu mel noonu ñàkk dégg dégg yu rafet ak xel mu téré téré ñàkk xam dëgg dëgg rek moo leen yóbbe loola in lam tulaaqi ndéem tasiwilaak muslihan aji defar fal takk tafi na nga doyloo bi maa ci la nga xam ne nafsa yaxal na bisi ci moom xiyaaru salafi tànnee fi dawal ba mooy tànnee fi gaayu fi jiitu woon foofu moom sharihatu nabi yi mooy yoonu yonante ba al mustafa ba di buñ tànn salla yal na dolli tedd nga musalliman mbir mu muy aji dolli wóolu xale ci moom dul wafa boroom matale kulëre te mooy yàlla ne boo gisee sëriñ boo xam ne moom digganteem ak boroomam jag na mu mën la caa teete loola moom moo gën a gaaw bul jéem a aw sa yoonu bopp waaye nag bu fekkee gisoo ku mel noonu dangay seet li nga xam ne moom la alquran ak addis ak li nga xam ne moom la gaa yu baax yi déggee ci alquran ak addis te bind ko yaxal ko ci seeni téere nga jàpp ca loola bu wér a wér ndax loolu mooy shariha addis ba dane bàyyee naa leen yaar yoo xam ne bu ngeen ci jàppee rek du ngeen sànku muy alquran ak sama sunna gaa yu baax itam dañoo sukkandiku ci yooyu yaar ci mayug yàlla génn ca ay taalif yoo xam ne yu yéeme yéeme la ma ne nag boo gisul sëriñ bu la mën a tegtal yoonu yàlla fexeel ba xam alquran ak hadis ak li nga xam ne moom la gaa yu baax yu jukkee ci alquran ak hadis nga sukkandiku ca ndax loolu moom mooy yoonu yonante ba ku ci aw rekk mucc mu ñaan yàlla doon yonante bi ngeen ji teraangaam ak ngeen ji jàmmam wala takun tabul nekk mu farri tan di aji sàggan aw mu fri tan wala ngay aji ëppal ba li fi nekk istaqim na nga jub fii sunnatin ci sunna wa aq si tan te nga maandu fa axbaroo xibaar nañu bi ànnal istiqaamata ci naka jub nihaayatu salaaxi mooy yemukaayu ak yiwu maanaam ak mbaax wal karaamati ak karaama muy daal da ngay sax ci sunna jub ca xocc te bañ a ëppal bañ a yéesal ëppal boo ko defee mën naa am nga gaaw a dàcc ndax boo yenoo yen boo xam ne attanoo ko it xëy na rek da ngay jékki-jékki yenni ko ko te doo ko tey yéesal ba tey xomp ko fab tuutee tuuti ba tey baaxut da ngay digg doomu rek seet loo xam ne mën nga ko nga bañ a ëppal bañ a yéesal sax ca rek nag te bañ a génn mukk rëddu sunna ndax mu ne gaa yu baax yi nee nañu jub te ko ca yoon wa sax ci sunna rek bañ ko wàcc ci genn wet mooy yemukaayu mbaax mooy yemukaayu karaama maanaam waliyu karaama gu mën di feeñal gu bokkut ak sax ci sunna biir bitti bañ koo wàcc lu mu tuuti tuuti geneen karaama gu mu feeñal gu bokkut ak googu rek nga xam ne kon feeñalut karaama ga féete kaw ga féete kaw moom mooy sax ci sunna googu rek ndax karaama gu bokkut ak googu mën naa mu feeñe ci waayi saytaane ku ñu gis mu sàmmoonteeg shariha mëni su ko jam ci shariha ci genn wet kooku moom lu feeñ ci moom mën nañoo jàpp ne day waliyu yàlla defal ko karaama googee koo xam nag shariha mën na koo jam ci wet bu feeñalee karaama dañ cay maandu rekk ndax ndegam xëy na wali yi feeñal yu nuru xat shariha ci zahir te doonu ko ci baatin te it jamono ji moom kenn ku nekk sa bopp amut ku lay awale ci yoon wa kon kuñ gis muy xëtt shariha te teewul muy feeñal karaama mënees naa maandu ca moom rekk wala takun tebul nekk mul tafitan di aji geestu li kulli man ñel képp koo xam ne raaytahoo gis nga ko yu shibihu muy nuru cheikhan ab sëriñ fi zamani ci jamono day laa biire mu wax ne bul def koo gis rek muy nuru ab sëriñ nga dal jàpp ne moom la daal di ànd ak moom ci yoonu yàlla na ngay teeylu ba gis koo xam ne mën na laa teete dëgg-dëgg ci yoonu yàlla nga door a ànd ak moom mu daal lay jox misaal ci ne du rekk lu nuroo dara dal koy doon dara mën naa nuru leneen te doonu ko mooy falay sa kulluma déet lépp loo xam ne taraa danga ko gis mu daw waran mu lu ñu wëndeel kaakan mu di aw miskit wala bong bong walay sa kullu daw in te déet gépp leer xamaran muy leeru ku weer mu ne bul def loo gis rek moro maanaam kuppandal nuru aw miskit ba nuru aw bonbon nga ne miskit la mbaa bonbon la dali koy seex ba tey mu ne leer moom leer rek la waaye nag doonul leer yëpp yam leeruk sondeel ak leeruk lampe pétrole leer la waaye nag taxul mu yem ak leeruk jant bi mbaa leeruk weer wi kalla uyu wala kalla déedéet walay sa kuluma in déet mépp ndox sal sa biilan muy ndoxum sal sa biil am na sal sa biil boo xam ne dañu ne buutu ndox la bu nekk ca àjjana ba tey nag sal sa biil dañ koy tuddee bépp ndox boo xam ne bu neex a neex la ba boo koy naan day neex a naan lool mu ne nag du ne rekk ndox moo gis muy ndoxum salsabiil walla sa suhudun déet xabu lem mis la saabin muy kem saab saab te garab yuy xat yaa na biil yow aji xellu ba tey ku ne xam na ne lem ni mu neexe wute naag lool garab yi saab yooyu mbaa nga ne wute naag xeetar lool lool walay sa kulluma déet lépp loo xam ne naa irun aji leer la fi leeli ci guddi naaral mu di aw sawara bi xaawoo nekk na ca istilaa uman jaaruk ka nga xam ne yusaafiru dana tukki ba tey nee na bu dox ci guddi gi di def nag loo seen rek ne sawara la naa dem tibb ca jaaroo mbaa naa dem tibb ca niitoo déedéet man ngaa seen ci guddi luy xooy muy nuru sawara fekk na njuuma la mbaa leneen la misaal yépp da ci wone rek ne nuru ab sëriñ taxu koo doon kon nag bul def koo gis rek mu lay nuru ab sëriñ nga daldi ne ab sëriñ la daldi ànd ak moom ci yoonu yàlla wax tabir na nga nattu arrijaala góor ña xabla suxubatin ci njëkk ak àndaale wala tu saaxib te bul àndaaleeg xumran ab dof aw daa raxabatin wala boroomuk xemmim àdduna bala nga ànd kenn ci góor ñi nanga ko nattu seetlu ko ba xam ne moom mii doy na àndandoo mat na ab sëriñ nga door a ànd ak moom moytu la ànd ak ab dof mbaa ko bëgg àdduna farubba mastaqbaxta baraana ngay ñaawlu sha'nal xabdi mbirum ab jaam wa innahu te mbir moom naka moom xadd xaasa làq na kulla majdin bépp tedd nga ndax ne mën ngaa gis nit mu soof la na mu mel daal yaakaaroo ci moom ne am na wenn yiw mbaa genn mbaax fekk na moom nag lépp luy aw yiw ak tedd ngaa ku mbaax rek yàlla defal na ko ko zahi sa mel noonu rek waaye lu baax lu ne ma nga ca moom laa tas dari bul xeeb alxabda jàmba li qubxil malbasi ngir ñaawuk col maxa taxat dudin ànd ak ay gëgëstël wa kusrit danasi ak barik tër idi ngir rudda si taxat dudin baraana boroomi gëgëstël xadim talaa fees na nuuran ci ak leer was siran ak ci secret min ilaahin tukkee ci ab buur xadd xalaa bopp kawe na buur bu kawe bi mooy yàlla ne bul gis nit yaram wi ci boppam yooy te def ay tund ki xur ndax mu boole ca la mu sol rafetut ba noppi tilim boole ca bul gis rek ku mel noonu na mel ci zahir nga daal di koy jàppe noona defe ne du dara du kenn nit mën naa mel nii fekk na jaamu bi yàlla la bu sell sell boo xam ne ma nga fees ak leeri yàlla ak secret yàlla waru ba xabdin baraana ab jaam xadd xalaa kawe na indal oyooni fa bëti nit ñi ka annahoo daanaka moom xutt bu raxaa mooy kuuru gënn ga xay su yabiinu fu mu fi dana bir maanaam fu mu fi feeñ rek wasiyatuhu te dara jaam in tashara tasaaroona fil buldaani ca réew ya waxu te fekk na moom kal xir di mi ngi mel ne ki golo la dal raxmaani fa aji yërëme ji ba tey safaan ba nee na mën ngaa gis jaam boo xam ne boo ko dee xool ni ci zahir moom da ngay defee ne moo gën a mat ñëpp mel ne mboolem nit yàlla yi moo nekk ci seen kaw li kaw ci ni nga koy gisee rek ci rafetug jëmm jaag rafetug col gaag na mu mel fekk na booba nag loola zahir saa waaye bu dee ci biir rek moom moo golo rek ñooyam fa boroomam waxin yooyu yëpp da ko wax rek ngir bëgg a laabiire nde moom mësta bokk ci ñi woote ak wilaaya mbaa ñi weddi wilaaya kenn ba mu tolloo ci di wut yàlla boroomam dafa maasale woon mboolem nit yàlla yi ku ci dund mu siyaare la ñaan la sax nga yeesal ko wird wa nga xam ne moom la yore woon mbaa nga jox ko weneen wird wa amee woon bu fekkee ne rafet na ci yow njortu rek daal di sàkku ci yow loolu bu dee nit ku baax ku génn àdduna itam mu dem siyaare bérébam loolu taxal na koo wër réew mi ba gànnaar gannaaw ba nag bi ko yàlla woomatalee boppam def rek yonante bi muy ab sëriñam def alquran muy wirdam la doora féete fa ko yàlla féetale day sàmm oroma digganteem ak ñamu amante woon ak ñoom démb li mu am ndigalul woote it rekk moo ko taxa woote leeral ne moom buntub yërmaande la bu yàlla samp ci kaw suuf ndax yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko rafaatale la ko yàlla waxoon ne ko fasda bi ma tu'mar fasda bi ma tu'mar sunu boroom moo ko waxan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko li ma la yónni wax ko ca kaw ñépp dégg ko bul ko làq-làqal sëriñ bi nag bi ko yonent bi rafaatelee loolu leeral na lam ko wax mooy dane ko digal naa la mboolem taalibe yi ak jaami yàlla yi bëgg a maneeg seen boroom nga xamal leen nañu def ba maneeg seen boroom loolu maa la ko digal woote ko ñépp di dégg wooteel ne ku bëgg a maneeg boroomam na jaar si ci yow nga awale ko ca yoon wa mënale ko ak boroomam boobu nag la topp ndigal la daal di wax ne koo xam ne jàng rek moo la fi andi woon mën ngaa dellu wuti foo jànge ji ku bëgg nag li nu bëgg bëgg a sóobu ci li ñu nu digal kon na ñëw nu dem fal nan sarif nanu wëlbatiku li adabin jëm ci teggiin xadin toshara bopp tasaaroona aydan ba tey wa minhu te bokk na ca al ihtimaamu yittewoo bi suwari ci saari alquraan yi wa mitluhaa seenum kem la aayaatuhu laayaam ya al mufaddalatu ya diñ gënal wa kulli zikrin ak gépp tudd yàlla jaamihim gi aji boole aw yiw faltaaqila na nga xellu laa siyama rawante naag yaa xillu yow xarit bi in baaxa ndem xat na alxumuru dund ga wal waqtu ak waxtu wa fa bu taxil na nga toroxlu wa jaanib te nga sorenteeg maa lépp loo xam ne yaduru dana lor mu ne buntu bi nu nekk kat bul fàtte ne mooy buntu teggee nag ngëneel kon nan kon nan dellu waxal la yenn teggin yi ne bokk na ci teggin yi nga yittewoo saari alxuraan yi nga xam ne dañu caa wax ay ngëneel yoo xam ne waxuñu ko ci yeneen saar yee ca des alxuraan moom lépp waxi suñ borooma lépp di aw yiw waaye nag am na ci saar yoo xam ne lañ ci wax ci ay ngëneel waxuñu ko ci yeneen ya ba tey it boo duggee ci biir laaye yi am na ci ay laaye yoo xam ne lañu leen waxal ci ay ngëneel waxaluñ ko yeneen laayee ci des mu ne kon nag bokk na ci teggin xeeti saar yooyu ak xeeti laay yooyu nga xam ne dañoo am ay jagle ay ngëneel yoo xam ne waxuñu ko ci ci des nga fonk leen bu baax yittewoo leen ndax nga gën a bari tuyaaba lépp luy xeetu zikkar xeeti ñaan yi nga xam ne dañoo ëmb tuyaaba yu bare bari na nga leen fonk lool ndax day am xeeti zikkar wala xeeti ñaan yoo xam ne boo ko waxee rekk benn yoon ba nangam yoon na muy toll ci aw yiw dana bari bari waaye boo xam ne du neex a xam ak a takk rawante na nag boo seetloo dunduk doomi aadama ni mu gàtte ak soxla yi adduna yi ak tiq-tiq yi ni mu baree kon saar yu mel noonu ak laay yu mel noonu ak xeeti zikkar yi rek ñaan yi demee noonu ba ci yenn xeeti julli yi nga xam ne day ëmb yàlla yu rëy rëy mat na di fonk lool lool ci misaal ci misaal bu fekkee da nga daan jàng bis bu ne nangam ci alxuraan tey nag nga am gàllankoor dangay fexe ba bari la jàng qul huwallaahu mi nga xamee ne boo ko waxee yetti yoon rek mu weccib kaamil bari la jàng lu mel ne ida zulsilati ak wal haadiyaati yi nga xam ne kenn ku ci ne wecc na genn wàllu kaamil wa suuratul mulki saaru mulki bi kul laylan ci képp guddi taq yi dana fegal alfata jamsa fil xabri ci bàmmeel kulla hawlin mépp tiit yenn suuratul mulki muy tabaaraka boo ko dee saxal ci guddi gu ne kon boo duggee ci bàmmeel doo fa fekk menn tiit wa kullu man képp koo xam ne asbata saxal na rakxatay ni ñaari rakka baxdul xisaa ci gannaaw gee bis suura tey ni ci yaari saar ya tey ni iile yaar almulki te mooy almulki wa sajda ci ak sajda fallaahu yàlla xalaa kawe na yaxludu dana jéggal fii xadin ci ëllëg la wàññal ko maa la nga xam ne faa la defoon na ko minal xataayaay ci ay ñaawteef su ma yar faa ma topp dana yëkkati la wàññal ko daraja tan daraja wa yaktubu te muy bind baax du ci gannaaw la wàññal ko xasanatan yiw bi kulli zambin ci bépp bakkaar xat janaa ba tooñan na ko fa xaasate mu làqi min huma ci ñoom ñaar almasaaya ngëneel ya wala mun a ak mébét ya mu ne it boo saxalee gannaaw boo jullee gee ba noppi julli ñaari rakka rakk bu jëkk ba gannaaw faatiha nga jàng ci suuratu sajdati rakkab ñaareel ba gannaaw faatiha nga jàng ca suuratul mulk kon de bu ëllëgee yàlla dalay jéggal lépp loo mas a def ci ay ñaawteef du yem rekk ci jéggal la say ñaawteef waaye day seet ñaawteef woo defoon wu ne bakkaar boo defoon bu ne mu wecceel la ko aw yiw ba noppi nag yëkkati sa daraja wa suuratul xawaani saaru baqara wal ximraan ak ximraan tuxniyaani danañu doyluloo xañ li fataa walis cam si alxujjata lay wax nee na jàng baqara ak ximraan baax na lool ndax day tax bu ëllëgee ci bis penc ci ñooy taxaw layal la ba nga yey ci addis ba dafa tudde baqara ak ali ximraan az zahrawaan ba ca daaneelu addis ba mu ne ñoom ñaar day yu xaajaani xan asxaabihima bis pencee dañuy taxaw di layal këleen daa bari la jàng ba kooka yey daldi jàll wayin qara'atum dem jàng ngeen suuratal xawaani saaru baqara fil bayti ci néeba mbaa ci kër ga xawfal jinni ngir ragal jinne wa sheytaani ak seytaane fal baytu néeba laay duxuluhu du ko tàbbi a sheytaanu seytaane talaasat ayaami dirub ñetti fan yaa ixwaanu yéen bokk yi nee na saaru baqara nii boo ko jàng xamal ne diirub ñetti fan nii boobee seytaane dafa ñemee dugg ba tey jinne juy lor du fa dugg ca addis ba daa wax ne seytaane day daw bépp néeg boo xam ne dañu fa jàng saaru baqara inna sheytaana la yafirru min albayti allazi tuqra'u fihi suuratul baqara wa kullu man képp koo xam ne xadd jamahahuma boole na leen ñoom ñaar xiraatan ci ak jàng fii laylatin ci guddi di ko yanta fi ngir mu jariñu fa innahu naka moom yaktubuhu dana ko bind arrahmaanu aj yërëme ji min qaani tiil wara mu bokk ci jaamukati yàlla yi bindeef yi falaa yuhaanu tuddeefu ko doyadal nee na genn guddi boo fexee ba boole ci baqara ak imraan ñoom ñëpp jàng leen kon yàlla dalay boole ci jaamukati yàlla yu màgg yi kon yàlla dalay limaale ci jaamukati yàlla yu màgg yi màgg wa man qaraa ku jàng alximraana saaru ximraan yowmal jumuhati ci bëccëgub ajjuma sàllat kon julli malaayikul illaahi malaayika yi buur bi alxashahatu ña di way ragal yàlla alayhi ci moom min waqtil xiraati la dale ca waxtu jàng ga ilaa ma ji ilayhi ba ci dikku guddeem ga alaamaa ci kaw li nga xam ne nuqi la toxaleef na ko nee na bëccëgub ajjuma boo fexee ba jàng ci suuratu al imraan kon waxtu wa nga ko jànge rek la fa dale ba jant bi so malaaka yàlla yi dañuy nekk di julli ci yow mooy di la ñaanal di la sàkkul njëgal ci sa boroom ba kira jant bi so guddi gi ñëw wa ayatul kursi yi ayatul kursi yi yaa ixwaani yéen samay mbokk taajilu dana yemook xatxaan ci lu dog mu ci lu amul werante rubuxal quraan yi kaaru al quraan nee na ayatul kursi yi boo ko jàngee benn yoon rek dana mel ne alxuraan ko defoon ñeenti xaaj jàng nga benn xaaj ba wa kullu man képp koo xam ne yaqra'uha dana ko jàng boo xay da kulli fardin ci gannaaw gépp jullit farata fajaa kon dikke na bi xayril xardi ci ngën ji lebal yàlla idi ngir lam yakun du nekk yam na axoo di ko aaye mi ne duxóoli ci dugg ga li jannatillaahi jëm ci ajjana yàlla ja si waa mawtin ndare dee yasuulu kook dana songe ne boo farloo ci saa yoo jullee jullit farata ba sëlmal jàng aayatul kursi yi benn yoon kon day lebal nga yàlla lebal boo xam ne sa xol dana sedd ca fay ga ndax lam lay faye mooy sa digganteeg dugg àjjana dara doxu fu lu may rekk faatu booy faatu rekk daldi dugg àjjana loolaay fay ga wa in xaraataneem jàng nga al aaya tey ni yaari laaya ya yaa fataa yow ascam xibal xawaani ci mujjug saaru baqara kafataaka kon ñu doy la wulis julli guddi mbaa kafataa kon ñu fegal la fas bu tan na nga sax nee na yaari laay yu mujj ci saaru baqara te moo tàmbalee amana rasulu ba fa saar wayam guddi goo ko jàngi rek day taxaw taxawaayu fanaanee julli guddi googee am ñu ko firi itam yaar laay yi fegal la lépp lu aay dara du la ci dal dafa am addis bu wax ne man qara'ahuma fii laylatin kafataahu am benn bu dikk itam xawa nuroog boobu te ëpple koy baat man qara'a bil aayatayni min aaxiri suuratil baqara fii laylatin kafataahu la ko daaneele dañoo wute ci baatub kafataahu am nañu ko firee ajza'ataahu xan qiyaamil layli am nañu ko firee kafataahu min kulli shaytaanin fala yaqrabuhu laylata am ñu ko firee kafataahu ma yakunu min al afaati allati takunu fi tilkal layla ñe dañu ne yaari laaye yi guddi goo ko jànge addis bi daa bëgg a wax ne dana wecci fanaanee julli guddi googee am ñu ne kafataahu mooy saa yoo jàngee yaari laaye yooyu ñoo lay fegal saytaane ci guddi googee ba saytaan du la jege am ñu ne kafataahu mooy boo jàngee yaari laaye yooyu ñoo lay fegal lépp lu aay ca guddi googee waaye nee nañu li gën a wóor mooy nga ne yii yëpp day dugg ci biir mooy saa yoo dagam dane kafataahu rek te tënku ko ci dara say boo ñu dugal yëpp yëpp rek ne moom daal boo jàngee yaari laayee ci genn guddi yi ñu wax yëpp yëpp nekk na ca biir da nga am yooyu wa in qara'ta ndem jàng nga axiral imraani mujjub saaru imraan